jàmm maa ngi jàmm bu baax a baax baale ñu àq baal naa la baax naka tabaski bi bi ngi rek doomu Mbàkke doomu Mbàkke mi ngi Mbàkke dégg naa yëpp nga yëngal na Mbàkke démb démb mooy borom dëkk bi tamit nag mooy borom dëkk bi mooy mooy borom daa ñëw jaaxal ko de waaw ah, Paul seulement Paul borom jom la borom fula ba dem jom def fayda soo bëggee dégg dëgg laa mu noonu la mm. waaw mais mais mais xale baa ngi lay laaj de déranger ah déranger combat la yaa moom déranger waaw su ñëw may ko sens kay kay kay su ñëwee. nee na bu ñëw boo ñëwee may su ñëwee ma may ko sens. soxla wu ma sa sens dañuy bëri rek maa war a jël jël. su ñëwee ma may ko sens. yow rek maa bu góor wala nga fay def lu ma fi defut. grand da ngay ànd ak dal grand xool da ngay ànd ak dal. non non bu ma la may sens affaire sens bi daal di am nga téye sa sens. man boo ma mbooloo boo ma ginaaw maa seer téye ko affaire tapé la boo ma. déranger da ngay yaru da ngay da ngay faire déranger déranger déranger. Mbaye Babacar Mbaye Babacar man ñu ma bëreel xool Mbaye Babacar ñu ma bëreel bëreel ak ñoom Sambe ñu ma bëreel bëreel ak ñoom bëri naa guy gi daan ko. guy gi mu daay daan ko bëri naa guy gi. nooro lu mu fi def bëri maa nooro daan ko. professeur man bëri maa bëri maa moom daan ko. non loolu jarul yeggale yaa ko jiitutu lamb. kon waxul lamb li mbër lay wax rek. kon nga déglu déglu man maa ci toog dérange da ngay déglu ma expliqué lamb man lamb laay wax lamb laay wax lamb laay wax. Boy Niang mooy sa grand ci lamb waa déglu rek lamb laay wax waxuma leneen lamb laay wax waa da ngay déglu rek da ngay rek man maa lay wër parce que tapet ngeen moo tax ma leen di wër moo giri ay tapet lañ suñu njëkkoon mais a mu tàllal ma loxo kon wër morom bi gën a moo gaay moom mooy wër moom nii ñëwul woon yar ma may ko sa ñu ma defal ko bagas kii suma ko tee naa la benn base benn kii suma kii bu bul bu xool benn base laa ko def yow maa la bu doole ñu ko doon kii yàlla xam nga benn bala jamono bu baax a baax maanaam mbër il faut nga wane fair play wane yar wane teggin ñun ñooy mayante xaalis yaa ma dégg bu baax a baax laa dund ñun ñooy mayante xaalis njomum ñoo am yéen a wax bu baax gënoo maa doon séeréer man gënoo maa doon séeréer il faut ngeen il faut ñu wane yar wane teggin fi ay kilifa ñoo fi nekk lan nga gis ci Boy Niang ma jàpp ne yow yaa ko mën dama laa ne moo giri buñ ngemboo ndoo ñëwandoo benn jour ma dàngal ñoom ñaar ñëpp li ma la wax dama dafa na ci man dama koo xam sañ-sañ bi ngay dégager. la gën a dof. te ñoom ñoo la gën a xam loolu lu ñuy teggi lu ñuy teggi man war naa ne fii du ma bëre. su ma demee ba taxaw dama koy message amul teggi. parce que Mbaye Babacar. dafa tur man soxoruma soxoruma booy yi moom moo ci turbe comprendre nga promoteur bu ma seet fay ma lu ko jox ma may ko sant bëri ak moom. mais Babacar booy yi gën a ës man loolu dafa leer nañ. may booy yi gën a ës. booy yi booy yi gën a ës man maa leen génne làmb ji waaw wala déet. déggu ma booy yi gën a ës maa leen génne làmb kii bokkut ak ñooñu eh, kii suñ jàppante day kii fu mu taxaw billaahi wallaahi taala sama combat ma noonu fu mu taxaw mu fekk ko mbàkk ko. billaahi wallaahi taala barki Seexul Xadim laa la génne. Sëriñ Tuuba la génne fu mu taxaw mu yow amoo fit non mu bu na mo fit la wala ñeme woo sëñ bi boo ñemewoon xam ne Touba Mbacke la jógee ñeme woo ma ma suñ ko doxee laax suñ ko doxee laax ak Touba Mbacke ma jël ko yow boo ko jëlul yow boo ko jëlul nan ngay def soo ko jëlul nan ngay def dama lay may sens len li rafetlu ragal dama lay may sens ma la wax soxla wu ma sa sens dama lay may sens ma la waxoon laa lay waxaat defoo fi lu ma fi deful maa la gën a seer lu may fay ko maa la ëpp no mu gën a seer lu may fay no mu gën a seer no mu gën a seer ëpp mbooloo dama nag moom gën a sax mbooloo moo tax juróom tëj la juróom tëj gisuma ko bu mbooloo lu ma yàndee mbooloo kenn benn mbëdug fenn mbooloo yooyu amut déranger tànk la dama set yooyu amut waaw man VIP la yow da nga ñëw laal trois morceaux jëlal ma trois morceaux bi jëlal ma trois morceaux bi dafa ñëw laal trois morceaux ndeysaan waaw ma yéen ma yéen ma yéen ma yéen ma yéen combat ngi nii combat dàqul bii combat promoteur yi gaaw leen promoteur yi njëkkante leen ko promoteur yi njëkkante leen ko combat maa la ko wax ñor na xomm ñor na xomm combat ñor la cey waaw waaw dérange Boy Niang dérange Boy Niang laa ilaaha illallah bi ak ñi nga xamante ni ñoo jóge ba Ndakaaru ñëw fii ñu dalal leen ñaar xale yaa ngi wax wuyu ma Ousmane Ousmane Ousmane dama bëgg Ousmane dama bëgg a wax ki nga xamante ni mooy ñaabu ndaw ñaabu ndaw am nga combat sa diggante ak sa dis nan nga ko waajee. waaw auzu billah ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant waa Mbudaay yëpp ah bàyyiwuma kenn ñi ñu àndal ñëpp mafia bi yëpp. di sant ñëpp dañoo dagg dige ngir man amuñ fi benn combat ba Sëñ baa man maa tax ñu jënd ay béy yu bëri ñëw. di sant ñëpp ay ñoom Tidiane Faye ñoom Malick ñoom Sall Loubel jàpp nañ ci combat bu baax a ay ñoom Isel sama gars yi di wax kii li ma koy wax man ak moom bëriwul quoi ba Serigne Bamba kii maa mën maa ëpp doole te ma ko jàppee ñu xam ne xaalis lamb soo ko si dugal quoi mais yoon noonu la demee nag man ak moom quoi wax dégg wax non dafay dagg parce dafa sori dafa sori sans fil bi mais Seydou Diis dégg nga ni moom waa onsu billah bismillah ina wali yàlla jërëjëfe sëñ Touba jërëjëfe sëñ Touba jaaram maam Serap Fall ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di nuyu képp ku fi teew ci làmb ji di nuyu promoteur bi nga xam ne tey moo ñu tëgg di nuyu tamit xam nga salle confiance mi taxawal bés bi tamit di wax ne xam nga ñëpp benn lañ parce que beneen journée lañ ñëw di ci présenté wu kon nga xam ne promoteurs yëpp benn lañ kon ñun bëri tamit benn lañ di nuyu tamit soxna si nga xam ne tamit moom lañ jagleel bés bi waaw muy Catalina di nuyu sponsor bi nga xam ne tamit moom lañ sol parce que moom lañ war a njëkk nuyu parce que tamit am na ci solo quoi waaw parce que tey lamb buñ jooyee sponsor la ñuy jooy tey lamb bu amul sponsor du dem kon dañuy wax ne sponsor yëpp nañ ñëw ci lamb ji parce que tamit lii dañ ciy kontaan parce que ñun ay ndaw lañ mënoon nañoo dem nekk ci leneen mais nekkuñ ci lu dul lamb ñu ñu ciy jàppale dañ ciy sant sponsor bi bu baax a baax a baax waaw sponsor yëpp ñi a xam ne tamit ñu ngi jàppale waa làmb tamit xam nga ñu ngi ñu ngi leen di kii bu baax a baax a baax di leen woo waaw di nuyu tamit sama adversaire waaw muy ñaabu ndaw waaw ñaabu ndaw la hmm. bu soobee suñ borom day gën a ndaw bu soobee suñ borom lan moo tax nga ne day gën a ndaw day gën a ndaw parce que dama koy jàpp nokkatu ko fii dama ko bëggoon a duma jéggi ko dem ci ki ci des mais kooku dafa ragal moo tax mu balàmb mooy kan dégg nga li mu wax nee na daf la noggatu nan ko koy yëgee. waaw mais man dama fàtte sponsor bi quoi waaw di jaajëfalaat sponsor bu baax a baax a baax a baax waaw King Baba di ko di di ko jaajëfalaat bu baax a baax a baax kii li wax ni day xalaat di wax rek ba Serigne Bamba gars yi seeraan fii làmb yëpp xam nañu kii man ak moom du làmb. billaay walaay taala kii ñi même ñoo ko ëpp doole fuuf. te incha allahu rabi kii kii bu arbitre soufflé après lan demee tam xarit di xam ne kii du man ak moom. ndax dina ndax cër cër yi da koy nañ dem ba jour ba. Mbaye Babacar ñaaw ñaari xale yii. lekk cere xëy bëre. lan gis ci ñaari xale yii ma jox la micro bi nga daal di ak ñoom. jërëjëf jërëjëf El Hadj Ndiol macha allah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ñaara ñëpp jàmm di baalu ñëpp ak. di leen baal àq ci bis bu sell bi ñu génn muy bisu tabaski mbokk yi li mooy wane que Diourbel promoteur yi ñoom ñëpp benn lan ku nekk xam na ne Diourbel production mooy xewle tey wante Ouze production mooy def signature de contrat ci biir événement bi loolu mooy wane ne Diourbel promoteurs yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñaari xale yi nag li ma leen di wax mooy le jour ji combat bi ngeen bëre ko ci jom bëri ko ci fulla bëri ko ci ngor ndax ñaari ndaw la ngeen te ki leen tëgg tamit xale la comme yéen yëkkati alalam jox leen kon le jour ji allah andi leen fulla andi fayda